te liggéey Sëriñ Tuubaa yi nag benn da ci ëpp taxawal ko bis bi bis bi sant suñu borom nañ ko sant rek ku fi masee nekkal ko ne ñu gis bis bi nu mu ko yitteele ñu gis Sëriñ Muntaxaa mi itam nekk gul Sëriñ Tuubaa di ay jëwriñ ci ay kilifaam mu ci daan taxawe di ko ànd ak yor liggéey bi ba yor liggéey bi Sëriñ Tuubaa bi di jëwriñ ji daf see ma si xamaat muy jëwriñam ñu liggéey bi mu mboolu mi itam biñ ko tëralee ngir ñu taxawu màggal gi sëñ Mahamadou Basir jiite mbooloo mi ci la jël sëñ Ousmane muy coordonné mbooloo mépp wax nañ ko fi léegi lim nañ fi commission yëpp wax sëñ Abo mi itam waaye ñoom liggéey bi ñu rafetal ko lool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 mooy xam li nga xam ni yitteel na sëñ bi mu def yitteem yëpp ca loola ginnaaw am noonu moo mënu suñu bopp moo mënu suñu bopp dara te leen bëgg lépp nag mujj gi lépp mooy am ngërëmal sëriñ bi ngërëmal sëriñ bi nag dana ci sàkkoo ci li yaakaar ne lu sëñ bi la wala suñ kilifa yii doon wax ne nan ko wut ci nii bu boobaa nu jaayee di jëm ca loola bañ am geneen bëgg bañ am yeneen xalaat bañ am gis-gis budul xool fi ñu xooloo def li ñu defloo